yàlla lay delluwaat ndax alhamdulilahi boo ko waxee mooy li nga wax mooy mbooleem xeeti cant yi di ñeent lillahi yàllaa ko moom li tax mu nekk xeeti cant yi di ñeent mooy cant gi yàlla sun boroom subhaanahu wa sant boromam sant boppam muy alhamdulillah kon cant googu ci moom la jóge waaye rek ci moom lay delluwaat ak cant gi nga xam ne ni sun borom moo ko sant jaam bi sant googu tam ci sun borom lay delluwaat ndax yàlla sun borom subhaanahu wa taala bu boobu def lu jar mu gërëm ko moom moo ko defal loola kon cant gi day delluwaat ci moom ak cant gi nga xam ne nii ci jaam bi la jóge jëm ci moroomum jaamam sant googu moom itam yàllaa ko jagoo ndax loolee ko moroomum jaam mi defal bam koy sant loolu sunu boroom a ko ko defal ak cant gi nga xamante ne nii jaam bi moo ko sant boroomam sant googu tam ci yàlla lay delluwaat kon mboolem xeeti cant yépp sunu boroom moo ko moom cant nag. comme niñ ko xamee du jekki-jekki rek ne alhamdulilahi rek jàpp ne sant nga wala alhamdulilahi rabbil alamin loolu lu baax la lu am njariñ la waaye boole ca jëf moo gën mooy nga wax ko waaye itam nga jëf ko jëf gi mooy lan mooy euh, bàyyi lépp loo xam ne suñ boroom tere na ko te lim digle lépp bëgg ko nga def ca sa kamtalaayul kàttan sunu boroom nag mbooleem li nga xam ne nii digle na ko dara lu ko cay jariñ amut waaye moom la digle moom la bëgg li nga xam ne itam tere na ko ca dara lu koy lor ca loola amut waaye moom la bañ te moom la tere kon sant yàlla dafa war a nekk ci euh, làmmiñ waaye itam ci jëf du càggee ni li ngay am ci àdduna rekk it moom moom nga war a sant yàlla lu mel ne sant naa yàlla ndax am naa alal wala sant naa yàlla ndax am na naay doom ndax ñaar yooyu moom yàlla sunu borom nee na ci àdduna rek la yem almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunya alal ak doom moom taarub àdduna rek la yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allah bi xalbin salimin nee na yowmal qiyaam lépp loo fa andi lu xaw xalbun salim muy xol bu sell bi nga xam ne ni tënku ci ndigali yàlla ak bàyyi ay tere moo koy maye loolu du fa jariñ kon euh, yooyu yàlla may la ko nga sant ca lu baax la waaye loola lu suufe la ci cant ci ci sant suñ borom ca la ca gën a suufe ca la bokk sant suñ borom subhanahu wa taala mi ngi tàmbulee ci bam la defee ngay doomu aadama ndax sun borom espèce yu bari la bind ay milliards espèce la bind ci ay mbindeef milliards yooye mbaam àll nga ca kañaa nga ca janaxa nga ca unka nga ca sandaxa nga ca mbóota nga ca yooyu yëpp nga ca te milliards yooyu yëpp dala ca tànn yow beddi la def la ngay doomu aadama te yooyee mu def loole ñooñe dara nekk lu lu ci moom mu bañ mu defoon la ko waaye ci ngëneelam ak ci mbaaxam ci ne la ci la defee doomu aadama ngay doomu aadama mu wax ci alquran ne wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahr wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila gis ne doomu aadama lu baree baree bari ci li sunu borom bind moom la ci gën a favoriser ñu ne déetewaay mu def la nga yor am xel ndax mënoon ngaa nekk doomu aadama te doo amum xel te kon àdduna doo fi mën a lijjanti dara ndax àdduna lépp lis fii lijjanti ci li li tax yàlla wàcc ko wàcc ñu am xel a koy def ñu ne déetawaay mu boole la nga am am xel ba noppi nekk ku gëm yàlla ndax mënoon ngaa nekk doomu aadama am am xel te doo gëm yàlla ndax loolu bari na lool ci mbindeef yi ñu gëmul yàlla mu boole la ca ñu ne deetawaay mu dellu booleeti la ci xayr umma gën ji nation muy nation muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam xeetu muhammad xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo gën ci xeet yi ndax moom moo gën ci yonente yi kon aw xeetam moo gën ci xeet yi mu boole la ca defale la itam nga nangu am njàngaleem nangu ay digleem te bay ay tereem loolu muy ak cant mu wëlbatiku boole la ci waa kër Seyxul Xadim radiyallahu taala anhu nga xam ne moo waxal boppam ne bushirtu anna rasulallahi qaddamani yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam man la jiital mu dellu boolee tali ca foofa yooyu yëpp di ay cant yoo xam ne nii doomu aadama bala muy xool li ko yàlla defal ci wàllu àdduna ci diggante ay alal ay kër ay doom ay laneen ak laneen ne njëkka xool fi ko yàlla jaarale ba noppi te mooy def ko doomu aadama def ko doomu aadama bu am xel def ko doomu aadama bu gëm def ko doomu aadama bu dajeeg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam def ko doomu aadama bu nangu ay digleem ak i tereem def ko doomu aadama bu dajeeg ku mel ne xaadimu rasul ci jamono loolu mooy njël njëlbeenu cant doomu aadama foofu la war a njëkk a sante bala muy sant ci lu ko yàlla defal ci wàllu xéewal ñu ñëw ci wàllu yaramam muy wérgu yaram xam ngeen ne yaram dafa nosoo noo xam ne nii système la boo xam ne nii bépp cër bu ca metti lépp yëg sa nopp sa bëñ sa bët sa tànk sa loxo sa nopp sa biir lépp benn bu ci metti rekk dootoo mënati dara doo xalaati dara lu dul wér xesen rekk sa yaram bu bindoo woon xesen rekk dootoo bëgg lu dul xesen sa dañ dootoo mënati dara sa biir bu doon daw dootoo bëggati lu dul mu dañ xéewal yooyu nga xam ne mooy xéewal yi wérgu yaram itam sun borom dellu defalati la ko ci biir wérgu yaram gi itam mu defalati la loo xam ne nii euh, manoo mënoon na dal te bu la dalee xaj na du doon luy metti waaye dina la yàqal lu bari lu mel ni ku tëx doo dégg say nopp mettiwut waaye doo dégg ku lu sa làmmiñ dara siku ci waaye doo mën a wax lafañ say tànk mettiwut waaye mënoo dox gumba sëy bët euh, mettiwut waaye doo mën a xool te xam ngeen ni kuñ ne woon gëmmal une de temps rek te nelawoo luy metti ci yow lay doon sàkkaa nag te giirug dund nga gumba ko lu mel ni itam sunu boroom xañ la li ñuy wax smelling nga xam ne do dara du la xeeñ xetu parfum lu mu xeeñ xeeñ xeeñ lu mu neex neex neex yow doo ca jariñu wala mu xañ la euh, taste li ñuy wax test ak ak cafka nga xam ne lekk ay ganaar yu saf ak lekk ab jox ñoo yam ci yow dara du saf ci yow xeet yooyu yëpp ay xéewal la yu sun boroom am defal ko doomu aadama bi doomu aadama bi nag waral di ko seetlu jamono yu nekk di sant boroomam lu ci mel ne nelaw genn la ci xéewal yi goo xam ne nii alal mënu koo jënd pouvoir mënu ko jënd am na benn woykat bu mag bu siiw bu am popularité bu amoon popularité ci àdduna bi te bari woon alal lool ñu daan ko wax Michael Jackson moom xéewal googu ñuy wax nelaw moom la ko yàlla xañoon ba tax na lim doon barile barile ak lim doon man man ak lim doon siiw siiw euh, loola mënu ko woon a jënde nelaw parce que nelaw amul njëg boo xam ne nii doomu aadama mën na ko koo jënde ba tax sax bëggoon a nelaw taxoon na euh, muy jéem a wut ko nelawloo ba wax nañ ne loola moo ko mujj faat yóbbu ko àllaaxira lu mel ne itam euh, yewu ñàkk a di nelaw te yewu loola itam euh, am na ku ñuy wax Sharon kooku itam ba léegi wax nañ ne mi ngi nelaw médecin bu nekk ci àdduna bi ñëw na ngir bëgg koo yee waaye mënta yewu ñu gis ne kon ñàkk nelaw nelaw xéewal la goo xam ne nii kenn mënu koo jënd waaye ñàkk nelaw tam mbugal la goo xam ne nii doy na waar waaye nelaw itam ma ñàkk eh, nelaw yewu xéewal la goo xam ne nii kenn mënu ko jënd waaye itam eh, nelaw ñàkk yewu ci biir nelaw itam eh, mbugal la moo xam ne nii doy na waar kon loolu lépp daal buñ ko jàngatee dañuy gis ne la in shakartum la azidannakum ja alquran waxoon bu ngeen sante suñ borom suñ borom dolli leen kon xéewal yi nga xam ne nii am na ci am suñu borom defal na ko doomu aadama tàmbale ko ko bi mu ko bindee mu nekk doomu aadama jaar ci ak wér wéru yaramam jaar ci li ko manoon a dal lépp ci ay jàngoro te suñu borom teggil ko ko loolu doomu aadama bi war na koo xam war na ko xalaat jamono yu nekk di ci sant boromam di ci fàttaliku boromam ndax su fekkee ne fàttaliku fàttalikuwul boromam ci loolu suñ borom mën na ko mbugal mooy wala in kafartum inna asabi la shadidun su ngeen ma weddee dinaa leen teg mbugal moo xamante ne nii mu metti lay doon te loolu mën nañ cee jël exemple ku mel ne Namruuz nga xam ne mooy ki nga xam ne nii moo bëggoon a wax nañ ne moo taalaloon yonente yàlla Ibrahima sawaraam woowee ngir bëggoon ko caa dugal sun borom lim ko mujjeel mooy jël aw yoo dugal ko ci nob bi biiw googee yooway biiw moo mujjoon tax moom Namrouz mu mujj faatu kon loolu rek mën nañ cee jàngate ne wa inta tauddu nicmatallahi la tuxsuha xéewali yàlla yi bari na bari goo xam ne nii képp ku ko bëgg lim mënoo fexe ba takk ko mukk mukk mukk ci àdduna kon doomu aadama bi araam na ci moom jullit bi muy jàmbat yenn njàmbat yi te xéewal yi yépp ma tudd fii suñu borom jox ko ko léeg-léeg nga gis nit muy jàmbat ci ñàkk alal wala mooy jàmbat ci lu néew a néew kooku maa ngi koy wax ne ko jëlal balance teg ci loolu ngay jàmbat ci benn balance bi jël xéewal yi yépp la yàlla defal ak yi nga xam ne mënoon na la ko teg te ko teg ko ci beneen balance bi nga seet ba xam ban moo ciy wat kon mbokk yi jullit bi war na jam lu ko dal ci àdduna mu delloo si boppam xool xéewal yi nga xam ne nii moom la ko suñ boroom xéewalal comparer ko ak loole muy jàmbat ba xam dina war a jàmbatati wala déedéet kon doomu bi moom sant rek la war a def waaye warul di jàmbat ndax saa yuy jàmbatee nag sun boroom mën naa yabal ci euh, soldaaram yi te sun borom wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa sun borom ay soldaaram moom rek a ko xam ndax lim bind lépp ay soldaaram ay soldaaram lañ lim bind lépp ay soldaaram lañ soldaar sun borom nag. Euh, buñ ko bëggoon a xam man nañu wax rek ne janax yii nga xam ne nii ñooy nekk ci kër yi nga xam ne benn janax ju ñeme nit amul booy doo bokk ak moom benn yoon ci ci sa ci sa néeg saa yoo duggee rek su la janax ji gis di daw janax yooyu su sooboon suñ borom ñu génn kër yépp abal leen ni nga xam ne nii noonu la jëleen aw aw yoo dugal ko ci nopp Namruus boobu nekkoon buur bu mag am ay soldaar yu baree bari yoo woowee ak dundam jaare ca su neexoon suñ borom ñun ñii tey jii janax yi nekk ci suñ kër yi ñu génn abal leen ndax bu jëloon janax yi jal ko ci suñ kaw ñu lëjal ñu ñun ñooy mujj génn bàyyee janax yi kër yi kon suñ borom euh, kattanam ak mbindeefam yépp ay soldaaram yoo xam ne ni jamono yu nekk mën na koy utiliser ci jaam yi kon mbokk yi euh, loolu mooy li nga xam ne ni euh, jullit bu nekk war na jamono yu nekk mu di ko fàttaliku ngir di mën a sant boroomam ci jamono yu nekk ci li nga xam ne nii <clears throat> moo moo koy dal mu mën koo muñ ngir sante ko lépp li nga xam ne nii suñ borom defal na ko ko kon daal loolu ci gàttal mooy li ñu leen andiloon ci wàllu sant ndax sant lu lu yaatoo yaatu waaye dañ ko tënk fii rek kon euh, ñu ngi leen di dig daje ba beneen yoon incha allahu di leen wax ne nag sit bi su fekkee ne bëgg ngeen ci abonné jamono yu nekk euh, na ngeen euh, clique fii ma teg sama loxo rek. daal di bind seen email adresse ak seen password dina daal leen di abonné incha allah automatiquement bu ko defee ngeen mën di topp waxtaan yu demee nii incha allah di leen dig daje ba beneen yoon di sant sunu technicien caméraman di Serigne Chouaïbou Mar ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne nii mi ngi nekk États-Unis du sunu njiit ci liggéey bi di ko jàllale di leen dig daje ba beneen yoon incha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamullahi aleykum wa rahmatuhu